moo war a wuutu ki nga xam ne mooy njiiti réew mi kan lañ war a tànn mu nekk candidat benn bokk yaakaar laaj boobu daal moom mooy ngawti ngawtee ci nga xam ne kat mooy xel yi allié yi ba tax na ñooñu kat di ko jàppal tànk ngir ñi nga xam ne mooy seen mbër moom mu mën a gagné ci premier tour ci élection présidentielle bile waaye tànneef nag moom ndax dana yombam déet loolee beneen laaj la ndax gis seen ne kat moom ki nga xam ne moo nar a wuutu Macky Sall moom war na nekk ko fédérateur maanaam kuy dajale ak mën a xam askan wi baax a baax waaye mën a yeggale li nga xam ni mooy mbébétu ñi ci réew mi ba tax na candidat benn bokk yaakaar moom daanu ko tekk ci ab critère bu nga xam ne kat ñëpp dañ ciy daal di déggoo waaye ñi ci réew moom ginnaaw ba mu neen du bokk ci atum 2024 ñu bëree bëri bëgg nañu samp seen ni ah, nënd waaye tam am na tur yi nga xam ne kat ñoom daanaka sax ñu ngi koy daal di fësal lu ci mel ni ne Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye wala Amadou Mame Diop ñeneen ñoom dañ ne patt pataaral waaye tamit di xaar fan la wane di mujj ak gëtëm daanaka ci mandat bi yëpp kenn waxul woon ne kat moom candidat la loolu rek gis dañ ne lépp dafa daal dëgmal ci njiitiroo mi nga xam ne moom képp moom dong moo nekkoon seenu mbër waaye nag ginnaaw ba mu ne moom bokku ca gis dañ ñu bëri bëri daal ñoom ña ngay samp seen cuukel ba tax na juróom-ñaari weer wala sax lu ko gën a néew lool moo des ñu daal di amal li nga xam ne kat mooy élection tab njiitu réew mi ñoom ci benn bataaxal nee nga xam mooy Macky Sall moom mi nga xam ne jot nañ ko waa jox carte blanche ngir mu tànn ki nga xam ne kat moo ko war a wuutu ki nga xam ne daan ci déggoo waaye laata tànneef boobu rek ñu bëree bëri ci nga xam ne ay personnalité am ambition présidentielle wala ñu xam ko wala ñu nëbb ko gis nañ ne kat ñoom ñëpp daal war nañoo mën a taxawaat jaajuwaat ngir yaakaar ne kat kii nga xam ne daal moo nar a wuutu njiiti réew mi du bett kenn.